ku ca toll war koo baamu ndax seex Saliou Mbacke maa balaayi wa maa lamraali wa biir daa tan xaadu laxraali Cheikh Saliou Mbacke ne waa Xelkom bu benn daara ubbeeti di liggéeyi te jànguñu ñaar fukki wakkaanaxan ak juróom-ñett ndax da koo dëxañ ci wakkaanaxan arafi alxuraan maa balaayi wa maa lamraali wa biir daa tan xaadu laxraali ku yebu wéet ak wakkaanaxan nga ubbi woy woowu ñaar fukki tomb ngay ak juróom-ñett la tàmbalee ca woy woowu itam ba xasayit gi jeex ñaar fukki way ya des ak juróom-ñett mu jeex muy ñaari wakkaanaqan baatinub alxuraan mu nëbb ñu nëbb ko ca denc yooyu ci bunt boobu yi boo demee ca biir itam mu ne abqa sala mayil karim samadi ala nabi wa silti moomadi muy wenn way sëñ Tuubaa def ko ñaari way abqa salaamayil karimi samadi ala nabi wa silti moomadi ala nabi wa silti moomadi abqa salaamayil karimi samadi sëñ Fallu Mbàkke ne sëñ Tuubaa daa bind wa kaana àqan jàpp ma ci loxo jàpp sëñ Moodu Musaa Mbàkke ci loxo wamat nu ba yóbbu ci genn kees na jamoo leen wa kaana àqan na jamoo wa kaana àqan أبقى سلامي الكريم سمدي كين على النبي صلى الله عليه وسلم كين على النبي صلى الله عليه وسلم كين أبقى سلامي الكريم سمدي سن فالو نه بن في طولو سن توبا نه ñokkat fab ko suñu bopp nun ñaar maak sëñ Modou Moussa Mbacké nun tekk déglu ko duñu gis lu nu neex nuy wut lu leen neex netti li na sëñ wax te yëggunu àjjana janan lu nu ko jaral du nu gis ci àddina lu nu neex nuy lu neex taalibe yi netti li leen sëñ Tuubaa wax te yëgguñu àjjana du ne sëñ Fallou ne du nu ko def Tuubaa ca kanam kon taalibe yépp ca kanam Tuubaa ca kanam waaye kon waa kër sëñ Tuubaa ñëpp ci kanam noo ngi ñaan ci barke wakkaana xaqan fu ngeen bëgg seenub liggéey yegg fa ci liggéey sëñ Tuubaa na fa yal na ko romb waaw yal na jiitu seen njort ci kàttanu sëñ Basiru barka wakaanaqan man nag daanaa wax ne bu fekkee liggéeyal naa sëñ Basiru Géey na yàlla nangu saa ñaan gi tama def ko ba sëñ am satu jaxate ne jaay sëñ Abdulaat waxal ma boppam ne lu waay bëgg na ko ñaan tey ci néeg bii ngeen ma tegal ak per yi ngeen wuur ma ñaanoon ca ngërëmul yàlla am nanu ko ca ba lu ñaan suñ to sa bët mu bokk gi